أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ۖ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا يعلم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey ñaan yàlla tabaraka wa taala sunu nuyoo yi ak sunu ziyaar yi mu fekk leen ci jàmm fekk leen ci sutura fekk leen ci xéewalu sunu borom subhaanahu wa taala di am mbégte bu baax a baax ci dellu siwaat fii ci seen émission bii di al iftaar di amee fii ci Cherif Dabakh TV nga mën koo amee ci youtube bi saa yoo fa demee boo tàppee de baax TV nga mën koo am di ko topp saa su ne allah waaye comme ni nga xamante ne bii noonu lañ ko tàmbalee woon ca bis njëkk ya ba yàlla may ñu tey ñu am juróomi fan ci tey ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu ko ñu koy continuer noonu ba keroog mu yegg te mu nangul ñu li nga xamante ne bi jaamu nañ ko ci nangul ñu koor gi waaye nangul ñu julli yi nangul ñu yu baax yi nga xamante ni ñu ngi koy def ndax koor dafa nekk loo xam ni bu ci jullit defee lu baax comme ni ñu ko waxee woon yi passé yàlla daf ko koy fulal ca na mu kon jullit bi yow mi nekk ci weeru koor ñu waxoon la ni saa yoo jullee ba saa yoo xëddee ba pare e li nga xamante ni bii moo ci des mooy fexe dem julli ji ca mbooloo ma julli ji ca jumaa ya wala ca jàkka ya mu ëpp tiyaaba ki nga xamante ne bi ma nga jullee feneen fudul foofa yow mi nga xamante ne bi yaay topp émission bi saa ne ñu lay gërëm bu baax a baax a baax ci topp gee kóolute gi waaye di la fàttale ni weeru koor dafa am yu mu àndal yu bare bari bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi wa daan jàngale nit ki bu wooree mbooleem ay cëram dañoo war a woor loolu nekk loo xamante ne bii lu war a lu ñu war a bàyyi xel la ndax dañu nekk ci société boo xamante ni kenn ku ci nekk da ngay demee rek soloon li dal li dal sa xel te fekk ni léeg-léeg li dal sa xel mën naa bañ dëppook dëppoog sharia mën naa bañ dëppook dëppoog bi sallallahu alayhi jàngale te yàlla jox ko bu ñu waxee loolu rek sa xel dina dem ci ñi nga xamante ni bu ñu xësee woor dara du nekk seen yitte lu dul ay nelaw mbokk yi nelaw neex na lool waaye nag la la benn góor waxoon benn waay mu xiif jaaxaan gëmm bët yi ñu ne waa ji ah da ngay nelawa góor gi ne leen nelawul de waaw góor gi lu la lu la xamal ni kii moom nelawul mun a xiif mënut a ànd ak ay nelaw yu doy kon xiif te mën a ànd ak ay nelaw xam nga lu la koy wan yow mi xëdd ba pare sànguwaat ne naa nelaw ba midi walla naa nelaw ba ba ba heure bi gën a jege ma doog a yeew léeg-léeg yàlla nattu la nga nelaw nelaw yu diis lool xóot lool tiit ci ay nelaw yeewu bul xool sa téléphone de ndax heure bul xool tamit sa montre ndax boo ko xoolee rek 11 heures la lay jox mbaa 10 bu ko defee nga découragé. na man li ma nelaw yëpp yaakaaroon naa ni si léegi tàkkusaan jot ndeke dix heures yi ko jot <laughs> loolu moo lay wan ni nelaw di maanaam woor ba pare bëgg koo jàppoo ay nelaw yu dul jeex yàlla dalay teg natt boo xamante ni natt bu gën a metti boobu ndax di nga yeewu bëgg nelawaat nelaw ya nga doon def dootoo ko mën bu ko defee nag rek nga waye di ni ko gars yi di waxee waye di ci saa si waaw commencé nag lu ne nga dugg ci ku wax nga mer ah. lu ne te fekk yaa ko teg sa bopp te fekk ne am na koo xam ni ba mu xëddee ba pare ba dem julli ji ci jàkka ja fajar julli fa subaam gàddu na alquraanam jàng maam bu yor kurusam di wérd nga gis ni jamono jooju yow ci sa jëmmi bopp kay nelaw sax yaa ko gën demin ni ngay féexee ni sa xol di féexee ni sa xol di yaatoo kon dafa am jàngat bu rëy rëy bu nekk ci biir weeru koor te wax nañ leen ni diggante julli suba maanaam fi ñuy jullee suba ba fi jant bi di génne foofu nelaw fa yonent bi daf ko daan tere yonent bi daf ko daan tere moo tax na Tijaani radiallahu anhu nga gis ni heure boobu boo jullee ba pare rek bul dellu sa kër toog ci jàkk yor sa kurus del wért wasifaal laazimal ci heure boobu balaa jant bee génn nga yëg ni foofu nga toog di jaamu yàlla la la fay fekk ci péex gis nga bu fekkoon weeru koor yi dafa tombeek tàngoor heure boobu noom noo mën a def heure boobu day féex ndax lan heure boobu heure jaamu yàlla la heure boobu heure nangu ñaan la kon yow mbokk mi tabaarakallaahu boo xëddee ba pare fexeel rekk ba heure boobu bul ko nelaw di ko sànni di ko sànk fexeel it nag ci journée bi yëpp fexeel ba sa cër yëpp na woor sa bët na woor ak na mu war a woore say loxo na woor ak na mu war a woore say tànk na woor ak na mu war a woore sa bakkan na woor ak na mu war a woore mboolem cër yi la yàlla dénk wooral ko ndax loolu la la yàlla sant ci biir weeru koor weeru koor nag bëccëg gi ak guddi gi ñoo yem lañu la tere ci bëccëg bi buñ la ko tere woon ci guddi gi musiba am tere nañu la lekk ci bëccëg gi noonu lañ la mayee ngay lekk ci guddi gi waaye nag am na bàkkaar yoo xam ne niñ la ko tere ci bëccëg gi nga xam ne danga koy daw noonu nga ko war a dawee ci guddi gi nan ngay wooralee sa bët nan ngay wooralee sa làmmiñ nan ngay wooralee sa say loxo nan ngay wooralee say tànk nan ngay wooralee sa mbooleem cër yi la yàlla dénk ci biir weeru koor incha allahu rabbi yow mi may topp ci suñu émission bii di ñëw di sixième numéro bi dinañ la ko ci leelaral incha allahu rabbi kon fexeel ba bul sàggan mukk ci waxtu julli yi bul sàggan mukk ci njàngum alquran bul sàggan mukk ci def lu baax bul sàggan mukk ci wax lu baax incha allahu rabbi bu ngeen ñu toppee rek nii la ñu ko fas yéene ànd ak yéen ba ëllëg ci sixième numéro incha allahu rabbi di gërëm ñëpp di ziyaara ñëpp di baalu xaq ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ndogu ak jàmm